doole fii yàlla rek moo fi am doole. doole waaw yàlla fii de attends yàlla dama lay expliquer maanaam yàlla rek moo fi nekk comprendre nga. Tyson 2 champion la. jox naa ko cër jox naa ko ay matuwaayam yëpp lépp nangul naa ko. mais man bés ba. Hmm. man Franc am na fu ma bëgg a dem ci làmb am na fu ma teg sama bët ci làmb. Hmm. nekkul ay toog fii di wax laa ngi loolu da koy toog nga demaale ko. waaw di si ñaan yàlla tamit yàlla mu yàlla jàppale. loolu laa ciy wax ah. bu la bëggee te fi nga bëgg a dem a dem ko seqal bëggul nga yegg fa te waaw mën yàlla rek mooy téewaate. non ma dama lay dama lay non waaw dafa dama lay wax rek. waaw oui man dañuy waxtaan yàlla rek mooy téewaate. waaw dëgg la yàlla mooy téewaate comme nekku fi nag am na yenn yoo xam ne doo ko mën a wax nii. mais bu fi taxawoon dina gën a neex. comprendre ran mu wax ko. waaw mu wax ma tontu ko boobaa dina gën a saf comprendre nga. Mm-hmm. mais baal nuyoo Sénégal ak ñu ñuy seetaan xam nga ñu ñaanal leen jàmm comme dëkk bi fan yi xaw na yëngu tàng na ñu ñaan jàmm quoi loolu moo ëpp importance. yaa ngi ci koor si maa ngi ci xam nga aussi tamit di wax suma mbokk yi xam nga ñoom ñëpp ñu ngi si xam nga suñu mbokk chrétiens yi ñoom ñëpp ñu ngi ci weeru koor gi di leen ñaanal yàlla nañ koy féetee at yu bëree bëri parce que Sénégal jàmm rek moo fi xaj ñun ñëpp benn lañu ñun bu ñu paree mooy li ma la waxoon ci bunt bi rek ñun bu ñu paree après yéen la waaw ñun ñëpp on est des frères mhm. waaw ñëpp ñoo far yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla ñëpp am jàmm merci beaucoup di nuyu ñëpp di ñëpp dama am ay copains yoo xam ne mhm. xam nga ñu ngi ci diaspora bi waa parce que xam nga seen liggéey métti woon na trop si seen liggéey métti na trop quoi xam ak jamonoy mbas mi di leen ñaan yal na leen yàlla jàppale te taxaw leen baax a baax mhm. aussi tamit di profité di nuyu sama benn grand mhm. Edouard di jox xam ak ñoom Jean waa Joal yëpp maa leen nuyu quoi di nuyu sama benn copain bu wax Moustapha taf si ko business xam nga moom sonn na ci affaire yi baax a baax. Mhm. di nuyu Lamine Tonnerre Serigne Mame Diarra. Mhm. maa ngi koy ziar bu ak waa Interset yëpp. Mhm. bàyyi ma kenn Parcelles Assainies bi yëpp. di nuyu Mame Père Ba ak xam nga Mansour Ba. ñoom ñëpp dañuy jàpp ci affaire yi quoi maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar. oui kontaan ci yow.